lu mat juróom fukk ci ay bakkan ay gone yu ndaw a ndaw a rot na fi diggante mars deux mille vingt et un ak juin deux mille vingt trois lim bi bëri na de takku na benn bakkan rek bu rotee dafa mel ni àdduna yëpp lañu ñu faat barki démb bu bakkan rotee ca France ka jiite France dafa génn wax ak waa France ca saa si la génn ñun de ba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 mu toog ba tey mu ne su suba dina jàkkaarloog yéen pour wax ci mbirum politique yoon mbirum mandat loolu ñàkk a wekk askan weesuwut loolu li tubaab di wax mépris loolu màndarga la ci kii ngeen dénk réew mi naka la yore réew mi lim bi bëri na juróom fukki bakkan ak lu tegu